al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislam alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwaana illa ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون ونحن نستعد لذكرى الثامن عشر من صفر تعالوا نتذكر وصية للعبد الخديم صاحب هذه الذكرى وصية وصاها للمريدين قبل سفره وكانت وصية طويلة جامعة منها قوله رضي الله عنه man faala ma awjabahu llahu muxlisan naja min annaari wa daxala aljanna bi fadlillahi wa rahmatihi wa waadih wa man lam yafaalhu aamidan jahdan li wujubih halaka wa daxala annaara bi adlillahi wa gadabihi wa icaadih fa yaa qawmi xaafu llaha wa atiicuuh xaafu llaha wa atiicuuhu fi ma yamurukum bih ولا تخالفوا أوامره واجتنبوا نهيه لا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم وعلموا أبناءكم وأزواجكم وكل من تعلق بأزيالكم ما أوجبه الله عليهم وإلا فسوف تسألون يوم القيامة ودوموا على التوبة في كل وقت وحين ليحصل lakum tawfiqu taa fa inna chuma danbi yuritu lxirmaana wa yunqibu lxislaan wa qayda dunubi yamnau min min almashi ila taati illahi walmusaaraati ila xidmati wa nahaytukum an alisrar fa innahu yusawidu alqalba fa tajiduhu fi dulmatin wa qaswa la xuluusa fihi wala safwata wala laddata wala xalaawa fa jur saahibahu ila nnaari wa ila alkufri wa shaqaawa ñu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñu ngi nekk nii ci weeru safar di di waajal bis mu mag bi nga xam ne sëriñ bu mag bi moo santaane woon ñu ko ci sant la yàlla subhaana muy fukki fan ak juróom ci weeru safar sëriñ bi nag bi muy waaja dem ci géej ci tukki boobu amoon na ab dénkaan bu mu fi bàyyi woon batale ko njaboot gi lam bëgg ñu di ko def ak nam bëgg ñu mel ni mu wax dénkaan la boo xam ne ñooñee ko fekke woon ak ñépp ñëw seen ginnaaw ñoo ko seq sëriñ bi loolu la fi batale woon kon bëgg ñu mel noonu bokk na ca dénkaan bu ko dëggudu la bari wax na ko waaye bokk na ci daal la mu waxoon dangeen xam ne képp koo xam ne def na li yàlla waral ci moom te sellal jëf ga dana mucc ci sawara dana tàbbi aljanna nga xam ne kenn ku ne daal li tax li yàlla farataal ci yow sant la ko ngir indi la ci suuf ngir loola boo ca nekkee te sellal nekk ca ba noppi sellal lañ ca def lépp yàlla tax sëriñ bi nee na da mucc ci sawara da nga tàbbi na ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak ak digam ndax moo diggee ne képp ku nekk la nga war a nekk boo lëggee mu tàbbal ko aljanna kon nekk ci liñ la sant waaye nag sellal ko yàlla rek tax dara ray ngistal dara bokkaale bañ caarax mu ne képp koo xam ne nag defoo loolu li yàlla farataal ci yow defoo ko te ñàkk dafa bi amoo ci ngànt waaye yaa ko tey xëy na sax da ngaa weddi jàpp ne waru la kooka day nee dana alku dana tabbi sawara te loola maandu yàlla ak merum yàlla ak tëkku yàlla ndax yàlla tëkkoon ne ku ko moy te tuuboo ko wala nga weddi wala nga bokkaale ko wala ñu mu tàbbal ko sawara loolu la bokk na ci lim batale woon de ba gi ñu xam ne kenn ku ne ci noonu yàlla waral ci saw loos mooy sa liggéey war ci xëy ci gon mu ne yéen samay nit yéen samay bokk na ngeen ragal yàlla te topp yàlla ci lépp lu leen digal waaye bu leen wuutee ay ndigalam te na ngeen moytu ay tereem daan ne loolu nag mooy bu leen wuutee bu mu leen gis fa ab tereem nekk lépp fu muy tere bu fa kenn ci yéen teg tànkam waaye bu leen wuutee ndigalam lépp loo xam ne digle nañ ko ku ku dem na la fekk kon na nga sax ci ndigal yi te bàyyi tere yi mu tekki it ne na ngeen jàngal seeni doom ak seeni soxna ak képp koo xam ne mu aju ci yéen lu mu ci ajoom na ngeen leen jàngal fexe ba ñu xam yàlla farataal ci ñoom lan bi loolu la diglewu mu ñuy ku jiite kenn ku jiite ku ami doom soxna ku am ñoo jaboote ak ñoo leen jaboote moo xam ay surga lañ moo xam ay taalibe lañ ak ñu mën a doon sëriñ fexe bañ xam yàlla farataal ci ñoom ndax mooy tax ñu mën caa nekk te nekk ci mooy tax ñu mën a mucc bu ëllëgee nee na boo ñu am ay doom ami soxna ami njaboot waaye jàngalul leen bañ xam li yàlla faratal bu ma xeemee dana leen ko laaj da ngeen taxaw ci kanam jaam yàlla yi suñu borom ne leen ñii maa leen di dénkoon waxoon leen na ngeen fexe ma man yàlla xam leen war lu tax daku leen loolu ku ne ci noonu mbokk yi war am koo jaboote ku ne war nga yëg loolu ci sa bopp di ko bàyyi xel bu baax a baax nee na it na sax ci tuub waxtu wu ne na ngeen tuub dellu ci seen borom bakkaar yi ngeen yëg ak yi ngeen yëgul yi ngeen tay ak yi ngeen tayut ndax nee tuub ci la nit ki ame taw féexi mën a topp yàlla ndax nee na bakkaar daa am gaaf bu ñu àndal day tax nit ki da koy xañ ba du mën a topp yàlla ab jéggale moom bakkaar it boo xam ne day dox diggante nit ki ak dox jëm ci topp yàlla ak dox jëm ci lu baax kon kuy def bakkaar rek def baax kon nag bu la seytaane ma ne wala bakkan ba nga daf bakkaar nanga ko tuub tuub bu sell ndax yàlla ci mbaaxam ak yërmande leen ku tuub te sellal ko rek mu jéggal say bakkaar sëriñ bi wax ci it ne tere naa leen nit nuur nuur ci bàkkaar mooy def bàkkaar ba nag lànk bañ ko tuub def bàkkaar ba nag lànk bañ ko tuub leen nañ ko moytu ndax day wowal xol day ñuulal ab xol day lëndëmal ab xol bu ko defee nit ci lëndëm lay nekk ak xol bu wow waar bu ko ay mën a waar du faale su boobaa nag nee na duutu yëg bànneexu topp yàlla duutu yëg bànneexu gëm yàlla la cay topp mooy loola da koy xëcc jëme ko ci ak kéefër wala yaa subilaa jëme ko ci loolu bokk de ci li sëriñ bi dénkaane woon fi ñax bi fi ñuy dem waxit ne seen yitte bu mu ëppee ci seeni yaram ak seeni xar kanam bu leen def ñoo xam dañuy fonk rek seen yaram waxtu wu ne ña ngay sëlmu di raxas seen xar kanam di ko setal di ko toppatoo ci bépp salte bu ci laal ngir lan bañ ñu gis la di la di la ko yemee moom la koy xel mais loolu ci nit ñi la yem waaye nag li ngeen war a yittewoo war ko bàyyi xel mooy seen xol bi nga xam moom la yàlla di xool bu jagee sa lépp bu jag bu jagul sa dara bu jag na ngeen fexe ba seen xol yooyu nee na ngeen ngeen yittewoo lépp lu ci nekk ci ay tilim ni yaram bi tilim ñu di ko ñu di ko raxas ba mu set noonu la xol di tilim jàngoroy xol nag moo gën a leen faj na ngeen fexe ba seen jàngoroy xol ngeen faj ko ndax bu yéwénee ci la seen lépp di yéwén la moom la yàlla xool kon loolu bokk na ci bi dem ba boo xam ne yonent bi salaam am na lumb bu nekk ci yaramu nit bu jagee léppam jag bu jagul dara du jag te lumb woowu mooy xolam kon loolu toppatoo toppatoo sa jëmm ba ràññee ko ci yaram te sa xol fas dell ak ay tilim doona koo dara kanam yàlla jëmm dana rëy lool ci kanam nit ñi yu rëy lool yéeme lool waaye tekkiwul dara kanam suñu borom ndax lan xolam seetlu xolam seetlu kañaan ak ca naw jëfa nga ca xeeb ay mbokkam ak ca bëgg ak naan ca rëy nga ca yooyu mbokk yi mooy yi nga xam ne ay jàngoro la ay tilim tilim yi nekk ci xol kenn ku nekk ñoom war daf yitteem ji di ko fóot ba xol bi set wicc ngir boo lëggee mën a jariñ loolu la ñu sëriñ bi dénkoon mbokk yi wala boo bokk na ci lenn liñ dénkaane woon nee na loo xam ne bu baaxee léppam baax baaxu dara du baax yitte yëpp ci la war a jëf kenn ku ne di nen ñu ko xolam ndax jàngoree xol yi ñoo xam am na ci benn bu ngeen bu ci amee jàppal ne am nga wéradi boo xam ne féeg fajuwoo ci bu wér mën a woo jàpp loolu lenn la ci liñ suñu dénkoon kon bu ñu jubee bis bi ñuy fàttaliku ndigalam loolu war nañu bàyyi xel ndénkaan ndénkaan yooyu nga xam ne ca la nekkoon ñam ña ca tëngu woon it seen dund ak ba faw defaru ñu doon ay royuwaay ci àdduna doon ñoo xam ne bu ëllëgee ñu yaakaar yu man yàlla yàlla na yàlla boole dugg alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن مما أورده الشيخ الخديم رضي الله عنه في هذه الوصية قوله اعلموا أيها الإخوة المؤمنون فلا تهتموا بأوجهكم وأبدانكم فتغسلونها وتنظفونها من الأقذار والأدناس لئلا يطلع مخلوق عليه على عيب واهتموا بإصلاح القلب likawnihi mawdia nazari rabbil alamin wa tahiruhu min al adnaasi warrabail qaala annabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam inna fi ljasadi mudgatan ida salahat salaha aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh ala wa hiya alqalb wa ida kaana salaahu alkulli fi alqalbi wajaba sarfu alinayati ilayhi faatabiruhu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 فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور